ma jën ay téléspectateurs tuuti ma waxtaan ak ñoom euh, ñu xool naka la ñuy dundee couvre-feu bi ak confinement bi ma ni Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur yàlla sa jàmm yàgg <laughs> teet teet teet teet Sénégal ku ne amul sécurité yaa nekkul ci sécurité cee musuma gis lu mel ni ci àdduna ligne bi de doo gis lu dul ay ñu sol ay kii yu verte nga gis làmp yi tàkk nga teg ko ay làmp du làmp seen gilet yi la gilet yooyu tàkk taaj ñu la seen yàlla na seen jàmm yàgg liggéey bi rafet na sell na am ngeen yar am ngeen teggi ni ngeen koy defee baax na <laughs> kenn du yéen kat ma eh, kii ki dugg nii euh, c'est sew policier ki dugg nii alkaati la ki dugg nii ndaanaan la mais vraiment bu ñu nee non stress ma gis sama grand frère euh, gis sama mag sama xarit gis koo xam ni ndaanaan la ci wàllu humour ci réew mi ñu tëj ko këram confinement corona ay corona mais per maa ngi lay ziar. <laughs> Aba maa ngi lay ziar. maa ngi Aba ci loo ne. mais ci loo ne grand. gërëm yàlla rek tey mooy tuy tereem te déj nag déje toog. mais fan awo ñaareel u ñetteel pen euh, kii euh, euh, père fooy confiné woo. <laughs> ñetti jabar la wala ñaareel. Eh, baal ma baal ma baal ma. ma maa noonu maa <laughs> anticipé léegi yow léegi. mais léegi yow. fi ñu toll nii euh, naka nga koy lijjantee da ngay def fii ñaari fan comme ni nga ko daan defee def fee ñaari fan wala euh, da ngay mujjee toog fenn fi rek ba am ba ba ñu mujj lijjanti problème yi. xam nga neenaan naan actuellement confinement bi ak couvre-feu kenn du génn Ndakaaru. waaw. te fi mu ne nii. <laughs> ñaareel ñaareel bi moo nekk Ndakaaru. moo fi nekk waaw bi nekkul Ndakaaru. Ah, <laughs> yaa ngi foofu yaa ngi confiné wu foofu <laughs> <laughs> léegi per léegi per waaw yow père groupe Futurs Médias ngay liggéeyee. waaw adduna xam nañ ni per animateur nga humoriste nga. per ñëpp xam nañ la. alkaati yi xam nañ la ba pare père bu ñu ci loolu mu neex am nga sa badge. fu la neex mën nga faa dem. ngaay mexeek Louga loo ak yëpp mën nga faa dem. per yow mane ma per <laughs> père tere ngay ay ay loo fi mu toll nii laa wax. non non sama bat damaa réeroon. <laughs> mais père mais <laughs> père. Eh, eh, eh. père an Émile ngi man maay wax père man ngay non non non non man maay wax man ngay déglu père. an Émile mu ngi ci kër gi. an Émile ngi ah, fi bu dee sa bat dalaa réer da ngay woo an. léegi père nii. léegi père nii lan mooy sa problème yow. a ah, Aba. ah. Aba yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg bu baax. xam nga surtout Moutou Fa Anta Jama borom kooku yaa kuwénee ca daw mi xam nga ko. ah kooku moom ci laa koy dégg. moom mooy wax naan picc balaa ñor dëgg tànk yoo am na yoo xam ne kenn du ko lijjanti. bàyyi noonu. <laughs> waaw <laughs> ah, maa ngi jégalu fer euh, père maa ngi jégalu mais père euh, fi ñu toll li tax ñëpp toog ci seeni biiri kër euh, mooy problème bi nga xam ni moom mooy li ñëw ci àdduna mu fàtt ñëpp père daal di sonal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ana lan nga ci wax ñi nga xam ni ñoom ñooy les téléspectateurs de la télévision Futur Média li ma ciy wax daal mooy Aba mhm. ni ko ministère de la santé waxee président de la république waxee ko xalif mhm. général kulli murit waxee ko mhm. waa Tiwaawoon waxee ko ko waa Njaasaan waxee ko ko hmm. waa Yoff waxee ko ko hmm. aba mooy mbir mi déjà xam nañ ne metti na trop metti na wax dëgg hmm. yàlla ku la waxul mettiwul rek moom daa fekk ne tuwaar kàlla ma ngay dund leneen mais metti na ci boor yëpp la metti ah, ci poos yeeg ci fépp la metti ci boor yëpp ci boor yëpp la metti côté yëpp wax dëgg yàlla metti na mais day loo xam ne bii ne foog mu am foog ñu toog ndax day jàngoro joo xam ne dugg na ci réew mi te kenn ku ne gis na na muy def ca bitim réew ca fa mu départ ku ne gis nga nam fay def. wallaahi chaque jour nga dégg ñu naan ay deux cent dee trois cent quatre cent cinq cent. deux six cent rek ngay mm-hmm. dégg. Mm-hmm. yooyu rek ngay dégg. Mm-hmm. te ñun loolu dañuy ñaan yàlla musal ñu ci ci barke yonent bi. nit ci yàlla musalee mooy fexe ba ñu. jàng ko ñu maanaam ñi ko ministère de la santé di waxee président de la république di ko waxe médecin yi dina ko ko waxee ñu toog ci kër yi. dëgg la bàyyi nuyoo bi. bu nuy sëqat nu def nii bu nuy sëqat nu def nii sunu loxo. Mhm. boo ca dee sëqat ba sa yax bi damm sax jar na ko. <laughs> ba yax bi foofu sax per bilaay. bilaay du yegg foofu nuyoo bi nuyoo bi nan ko bàyyi nan bàyyi nuyoo bi. bàyyi dajaloo bi daj bàyyi dajaloo bi mbooloo mi ñuy def di dajaloo. tamit nu bàyyi ko. dëgg la. di moytu ndax xam nga abaa am na yoo xam ne gis nga buñ nu koy defal nun pour ñun boo xoolee ndeysaan ci ci euh, euh, couvre-feu bi policiers yi nekk ci télé bi ak gendarme yi ak armée bi. am famille. pour pourtant pourtant ñooñu dañoo am famille. bàyyi seen soxna bàyyi seen i doom. Mhm. bàyyi seen ay soxna bàyyi mhm. seen ay doom. bàyyi seen ak njaboot. ba pare ñoom ñu weeru ci mbedd mi. pour ñun. pour ñun ñii di nu aar ñun xoolal loolu. dëgg la de ah dëgg la ne nii tey fi mu ne nii tey yàlla tere abaa tey ne tey yàlla tere ñaanu ko yàlla mais bu ma xalaatoon ne am naa fenn fu ma gis ab kaadu man maay dox ak sama tànk te ko foo dem déedéet police laay woo mbaa gendarmerie waa ma woo médecin dëgg la de ñoom rek la ñuy exposé très bien ñoom rek la ñuy exposé mm-hmm, kon gis mm-hmm. nga ñooñu dafa am cër boo xam ne dañ leen koo war a delloo ba mu mat dëgg la dëgg la am cër boo xam ne dañ leen koo war a jox maximum de respect. pour les hommes de tenue muy police di gendarmerie. boo leen ko bañ a jox de ñoo ko jëlal seen bopp. Mm-hmm. Mm-hmm. mi ah wax dëgg fi mm-hmm. njëkk ñëpp commencement bi tuwaar kàlla départ ba na sàpp. <laughs> léegi moom wàññeeku na moom parce que ñëpp toog nañ ah, léegi moom ah, ah. mais père <laughs> mais lan moo tax nga doon nandite euh, nga xam ne Skype bi lañ lay woo nga wut say écouteur takk ko mais père yow noo xalaatee lii waa mais aba man ngumba ngeewul laa juddoo père nante nga waayoo père bu xar père nante nga man bu ma aba père waa man diggante ba ma juddoo la diggante toog bi faal njabi faal gàndaate xàll mbaan kàndala tuube guyoot bella xoor ndaat ngeloon jeg jaw xasim dàggantu tukulóor tëggandoo gi peex taal yang-yang taal bax la yaxiñee cuurun mbadaxun kër aram bopp cor ñan leen ba feeb foofaay nandi te nga tàggoo waale père mën nga tàggoo émission bi jeex na mën ngaa tàggoo nandi te la tàggoo <laughs> man man man man te xoolal li lay wan ni nandi la man maay man maay xaritu njaay teraanga ah. maay maay copain Ndiaye mais père waaw waaw waaw waaw dégg loolu kenn mais père. mais père mais père alkaati yëpp. génn. policier gendarmerie hmm. militaire yi ñëpp génn. waaw père yow ngay homme de tenue. Uh-huh. père looy def sa kër. <laughs> ay eh, fer bu xar maa ngi lay jaajëfal waaye maa ngi lay kontaane bu baax a baax ay ci bég naa ci fer bu xar no stress la ñu wax donc ndaanaan yëpp dañuy dugg